effectivement, comme vous l'avez si bien dit, nous avons démarré depuis euh, donc trois jours une tournée de massification et d'animation du parti. Donc nous avons démarré par Kermousseux. Ce matin, nous, avons, nous étions à Pout et aujourd'hui, ce soir, nous sommes à, à Tianaba. Tianaba, comme vous l'avez si bien dit, c'est une ville religieuse parce que vous le savez bien, la Khalif général est là. Donc, mais aussi nous avons un ami, M. Tala Diagne, qui est le maire, et non, notre frère Dan aussi, qui est le représentant des, des, des jeunes ici au niveau de, au niveau de Tcheneba. Donc la particularité de Tcheneba, c'est qu'ici, effectivement, lors des élections locales, vous l'avez remarqué, nous avons eu deux listes, deux listes de l'Alliance pour la République. Et que heureusement ou malheureusement, l'une des listes à a gagné, c'est la liste de M. Monsieur, le, monsieur Taladian, que nous félicitons de, de passage. Il a gagné largement, d'une manière très nette, Et on m'a même dit que sur l'ensemble des bureaux de vote, il n'a perdu qu'un seul bureau. Donc pour vous dire que sa victoire a été nette, claire, vraiment et précise. Et de facto, il devient le coordonnateur du parti. Parce que c'est ça euh, la décision du parti, ça la décision du président de la République. Nous sommes partis en élection. Celui qui a gagné devient de facto le, le coordonnateur du parti. Donc là aussi, il méritait donc d'être clarifié ici même euh, au niveau de cette, de cette salle-là. Il a été à sa Parce que nous avons remarqué que M. Diagne a une jeunesse vraiment très, très dynamique et très engagée. Parce que c'est ça aussi qui fait la force d'un parti. Au Sénégal, nous avons de 25 ans pour vous dire que donc la jeunesse au niveau de l'électorat. Qui gagne donc la je pense que peut euh, dormir parce qu'il pourra remporter les élections donc euh, au, au de, de, de, de en, en 2017. Donc je tenais donc à le maire pour l'accueil vraiment chaleureux. Remercier toute la jeunesse de, de, de surtout M. Monsieur, monsieur, monsieur, ah, ah, Ahmad Ngom et surtout les, les étudiants. Ah, ça veut dire que Tenez euh, Non, je, ne peux pas dire que le terrain est déjà balisé parce que sinon on ne serait pas là pour massifier et pour animer. Mais je pense que le maire l'a dit. L'objectif du maire, c'est de réduire l'opposition. Je pense qu'il a même tantôt dit que son objectif, c'est de faire sorte qu'à qu Tchaneba, qu'il n'y ait plus que le parti Rewmi disparaît, que le PDS disparaît. Je pense que nous allons l'accompagner avec ces jeunes dans cette mission-là. Et aujourd'hui, le président de la République veut gagner le département de Thiès. Ça, je l'ai dit et je le répète, le président tient à gagner le département de Thiès. Maintenant, pour gagner le département de Thiès, il y a un travail euh, qu'on doit faire, surtout au niveau des jeunes. Aller s'inscrire sur les listes électorales, animer les partis, massifier, avoir de nouveaux Et c'est cet objectif-là vraiment qui nous pousse quand même à parcourir le département pour rencontrer les jeunes, mais aussi connaître les problèmes. Il y a des problèmes, euh, tant que nous sommes euh, au niveau de la permanence en train de se réunir entre responsables, on ne pourra jamais identifier les problèmes. Il faut se déplacer sur place, écouter les militants parler, écouter la jeunesse parler. Aujourd'hui, nous avons compris les problèmes de Canaba parce que nous avons écouté les gens, les jeunes, Écoutez, ces problèmes-là, effectivement, comme je l'ai dit, il y, y, a une division au niveau, au de Tchanaba. Et que des fois, les versions qu'on donne, ce ne sont pas les bonnes versions. Mais si on est sur place, on peut aisément comprendre vraiment ce qui se passe réellement. Et nous avons pris bonne note. Et parce qu'à l'issue de, cette tournée-là, nous allons faire euh, un rapport qui sera remis au ministre, qui sera remis au président. Parce que le président est au courant de la tournée. Parce que comme je l'ai dit tantôt, le président suit de très près ce qui se passe à Thiès. Aujourd'hui, le président sait que nous sommes à Tianaba. Raison pour laquelle je vais dire maintenant aux gars, quelle soit l'heure qu'on aurait donc dû terminer à Pout, il faut qu'on vienne à Tianaba. Parce que le président sait qu'aujourd'hui, on doit aller à Tianaba et que cette là doit être faite nécessairement. Heureusement que nous avons trouvé ici une très parti et il ne cesse de soutenir le président Macky Sall mais pour autant en revanche il n'a rien encore reçu est-ce qu'aujourd'hui Moïse Diouf est prêt à transmettre ce message au chef de l'État et à la direction de l'APR pour que euh, les problèmes de la jeunesse de Thiénaba soient les problèmes et les transmettre au parti donc je pense qu'aujourd'hui les jeunes ont soulevé le problème le maire aussi a des problèmes parce qu'il a gagné il est du devoir

Écoutez, nous, je pense que euh, ces, ces, ces actes-là, nous l'avons déploré. Parce que je pense que être jeune ne veut pas, être, ne veut pas dire que vraiment quelqu'un sans esprit. Je pense que euh, l'université est un milieu vraiment où on doit étudier. Et donc, c'est un temple du savoir. Par conséquent, des actes de vandalisme, vraiment, c'est à déplorer, à condamner. Je pense que nous tous, tout républicain d'ailleurs doit vraiment condamner ces actes-là parce que vraiment ça n'honore pas l'université, ça n'honore pas les étudiants. Les étudiants, c'est l'avenir de la nation. Je pense qu'aujourd'hui, on devait même pas voir donc attaquer euh, le cortège du président ou bien même huer le président de la République. Si les gens ne sont pas contents, il y a d'autres moyens. il peut porter des brassards rouges ou bien faire des déclarations à la presse. Mais quant à jeter des pierres sur le cortège du président, je pense que cela est inadmissible. Donc, mais le président, vous le savez très bien, c'est un homme qui est vraiment au-dessus de qu'il a, euh, a, pardonné et ces étudiants-là ont été, libérés depuis hier. Et ça, c'est l'esprit du président de la République qui a un peu compris. Mais je pense qu'il euh, fallait aussi donner l'exemple à ces gens-là. parce que nous ne pouvons pas comprendre. Le président de la République, c'est une institution. C'est la première personnalité de l'État. Par conséquent, on ne peut pas comprendre que, que, que, ce, que, que son cortège soit attaqué, vraiment par de euh, qui Ça, ça c'est des actes à bannir. Moi, je pense que la, la jeunesse ne doit pas être un tremplin. nous avons vraiment une jeunesse mûre, une jeunesse vraiment responsable. En, en tout cas, nous, au niveau de la paire, vous n'allez jamais voir des, euh, des, jeunes de la paire s'adonner à ces pratiques-là. Nous, nous préférons euh, vraiment le débat d'idées, donc, donc, donc cas des actes de vandalisme et de sabotage. Les jeunes, on devait les voir vraiment... Les effectivement. Je, tiens à rappeler que le ministère de la Jeunesse donc donner une enveloppe de 200 millions aux jeunes du département de Thiès. Et qu'aujourd'hui, cette enveloppe est déjà disponible. Maintenant, il appartiendra maintenant aux jeunes d'avoir de, des projets bancables. Et c'est la pour laquelle nous voulons donner l'information aux jeunes pour que dans chaque commune, qu'on puisse avoir deux à trois projets Maintenant, on va essayer de voir avec l'ingénieur financier qui a été mis à notre disposition pour étudier ces projets-là, pour que ces projets-là soient bancables et, financés. Et je pense que l'argent est déjà là, les 200 millions sont déjà disponibles. Reste maintenant à avoir des projets vraiment bancables pour que vraiment que la, la jeunesse soit, soit, soit, financée. waaw jërëjëf Pape euh, di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, ñu ngi leen di nuyu bu baax euh, di leen sant di leen gërëm. nuyoo boobu ñu ciy jiital euh, sunu papa Baye Cheikh Tidiane Seck xalifatul généralu Thiénaba euh, di ci teg sëriñ Maam Mor mi nga xam doomam la yàlla dogal teewal ko fi tey ndax nag tey ndaw yi ñoo woote ñun dañuy yëkk encadre leen di leen déglu parce que nag nit bu dee liggéey war na déglu ña liggéeyal ba bu fekkee am na fenn rëq-rëq mu jéem a seet nu mu koy jubbantee di sant bu baax may Maysa euh, mi nga xam ni moo jiite ndaw yi fii ci département Kees tournée bi mu def rafet na jaadu na waaye bu aw yoon la ndax lii luy boole parti bi la waaye fii ci Thiénaba eh, léeg-léeg sax damaa daa dégg ñu ni Thiénaba dafa am problème mais ay ree la may la may def Thiénaba amul problème Thiénaba benn responsable bu fi nekk boo xam mën ngaa am fukki nit bu àndul amul mais ko xam ñetti nit nga am nag wala ñaar mësoo mën a gañe bureau boo taxawee fii sànnee xeer mais ñun duñ la tontu ki ni ki nga ki tontu mooy ki am mbooloo li nu bëgg mu bëgg ko jéem a jëflanteeg moom ba nangu li mu yor mais kaw xam ne amoo ñett nit mais boo dee wax ne cere ba am na problème mais ñun duñ ko yëg léegi firnde ji mooy lii liñ leen doon wax ci biir bokkul ak li am mais te fekk loolu lépp man waxan naa leen ko noon naa leen cere ba amul problème département Thiès amul problème man nan ko gañe mais nii leen koy gañee wun ma mais suñ ma wuyu wan tey élection yi département Thiès ñoo koy gañe maa jëkk a wax ci presse bi wax ne président Macky Sall boo ma dee déglu maa ngi wax ne département Thiès man nañ koo gañe mais boo ko defee nii leen koy gañe kaay régleel ko sa bopp boo ko tegee suñu loxo ñu regle ko ma ñun mën nañ koo gañe ba bisub tey loolu la ñuy wax département Thiès gañewun ñu danoo àndul woon ñàkk googu ñu ànd ñàkk ànd nag ba tax ñu ñàkk département bi loolu jeex na tey ñun ñëpp benn lañu ba tax na euh, na seen xel dal fii ci Thiénaba ñun amuñu benn problème yéen ndaw yi damay dalal seen xel surtout étudiants yi nga xam ñoo nekk Ndakaaru dégg naa léegi ñu wax ay doléances wax nañ ne subventionnel bu doon un million dama ni li tax APR gañe Thiénaba li tax ma gañe Thiénaba avant may nekk maire laa ko liggéey dama nekk samay bokk nekk ak samay dëkkandoo nekk samay am di jàmm nekk ak ak samay xarit lépp di benn ma dem élection gañe loolu de su ko liggéey ci benn bis wolof dafa wax ni tibbay daana mbër ci làmb dee su ko añee dang koy lekk démb kon bu ma dee toog ba yàgg ma dégg ñu ne Thiénaba am na problème ñu dox di wax mais kooku du ma du ma leen wuyu sax ñun fanu jëm dañ fay àgg fanu jëm mooy fan deux mille 2017 wala 2019 ñu fal président Macky Sall premier tour Thiénaba moom amul benn opposition bu fi nekk buñ fi mën a gañe noonu la la leer te noonu Thiénaba mel noonu la département bi mel parce que ñun ñëpp benn lanu man yaakaar naa ni bala noo àgg 2017 benn maire boo xam ne opposition nga déetu fi des parce que ñun ñëpp benn lanu ñu ngi gisee ci suñu biir ñu ngi waxtaan mais ndaw yi na seen xel dal maa ngi ci seen ginnaaw maa ngi ci seen kanam lépp lu ngeen bëgg dinaa ko def euh, euh, booy ngoom wax na léegi nii dama bëgg ñu subventionné bu doon un million avant may nekk maire lan ma téléphoné ni ma ñu ngi université mais dañoo am problème te yen responsable politique yéen lan yaakaar parce que lan ñu digal defuñu leen ko may leen lu ngeen soxla ñu ne ma nanga ma yëkkati yox leen bi ma demee ba nekk maire fii lan dugg sama bureau andi seen euh, doléance ni ma bu ñu fekkee ne lii boo ñu ko fajalul altine la ñuy génne may leen ñaata la ñun ma taala ma làmb sama poos man li ma leen defal du subvention ba bisub tey jëlaguma ci dara ci maire bi jox leen daaw bin ma ne am nan problème maa yëkkati cinq cent mille jox leen du mu maire bi sama poos laay làmb man di ma subventionné la ma doon def ba nit ñi ànd ak man ba ma gañee maire bi teg ko ci loxol président Macky Sall loolu lay continuer kon ne seen xel dal muy guddi muy bëccëg lépp lu ngeen bëgg dinaa ko def incha rabbi. ma jàpp nga le président euh, waa xam nga président dañuy wax état état mooy kan nit ki mais président bu yàlla dogalee liy xew-xew ñu nekk ay maire parce que président defal ñu lu kenn mësta def soo ma saa jóge fii dem dem Europe mais ñi ma wóone maay président commune Tral da ngay làqatu ci ginnaaw maire yi mais bi ma toogee léegi yàggul ñaata voyage laa def. incha bi feeg le deux dinaa fi andi projet boo xam li muy defar ci Sénégal mosu fee am te loolu lan moo tax ma nekk maire moo tax kon président lim ñu defal dëgg la nag nanu dolli pour ñu mën a jàppale population bi mais président jàppale nanu kenn ku ne yaay liggéey sa maire yi mais sunu toogee naa état toog naa président mais lépp président mënu koo def mais président li ko war def na ko def nanu ay maire def nanu ubbi na sunuy xel ku na xam na fi ñuy jaar am nanu ay moyens nan dem liggéey lu manqué président dolli nu mais ku toog naa président rek du sotti. maire bi nga xam ne def na ko lu leen arrangé la